yéen da ngeen tege ñun sénégalais dañuy nelaw. loolu sax xaw defal ndànk rek ma ñëw je pars sur des faits je mets sur des faits ñun tey bu ñu organiser Benno Bokk Yaakaar muy les communicants de Benno wala les femmes de Benno tey PS ñetti nit ñoo ko fay teewal yaa ngi may dégg réew mi avant muy génn benn nit moo ko fay teewal AFP benn nit yaa ngi may dégg. Mm-hmm. Euh, PIT benn nit PDS vingt nit ñooy ñëw. est ce que tu sais que aujourd'hui PDS ñooy contrôler le set de Benno Bokk Yaakaar. Mmh. maître Amadou Sall moom la Macky Ndiax njëkk a tëj. Mmh. ba mu faloo tey c'est lui qui contrôle le chef de Benno Bokk Yaakaar c'est fait tey ñun ñoo xeex ba Macky falu non est-ce que du PS AFP PIT LD ak Macky 2012 ñoo xeex ba Macky falu en 2012 ba Macky falu en 2019 dama ne limal ma benn responsable PDS boo xamante ne ni Macky nommé wu la ministre nga ci Marème Faye Sall yow doyen yaa ngi lekk suuf kaa ngi ci Marème Faye Sall yaa ngi non may ma rek ma ñëw donc loolu du diil ñun naka ñun ñun ñun les alliés de Benno Bokk Yaakaar naturel ñii bu ñu sañoon en deux 2012 et en 2019 Macky du falu pourquoi donc sénégalais ñun ñu seetaan ñoom ñun on a l'impression d'être les opposants dans la structure du pouvoir que le PDS il faut que les gens se disent la vérité dama nag ñun le décompte ñu xool ñaata law les libéraux contrôlés dans la structure du pouvoir en termes de ministère en termes de DG en termes de conseillers tout ça et que nous les alliés traditionnels ce que nous contrôlons donc est-ce que amul deal c'est c'est plus grave que deal c'est un complot beneen bis tegu mooy ñoom bañ leen recom remorqué ba leen yeewi remorqué ba ñu am la ñu am ba pare mais la ñu jàmb la ñu jàmb opposition. C'était en tant que on que daf ni dem lekk suuf kañ. waaw man dégg naa ko loolu di ci wax bien sûr. il faut oui oui moo tax ma dem Abdoulaye Gallo Diaw quand il l'a dit. oui oui bien dafa euh, Gallo Gallo Gallo di nga wax parce que nga ko li nga wax dafa garaaw en fait li nga wax dafa garaaw li grave mais sëñ bi dama ne je vous accuse il est d'un complot s'il vous plaît c'est-à-dire il faut ngeen déglu s'il vous plaît noppi on va pas dépassionner le débat non on dépassionne Djibril Djibril raconte des histoires ñu accusé mi ngi nii toog Djibril s'il vous plaît mais il nous accuse bay bay bay bay mu yegali Gallo noppil tuuti euh, Assane allez-y rapidement ah, ah déedéet déedéet ah, déedéet déedéet religieusement je l'ai écouté religieusement je est li ma wax est-ce que euh, ce que li wax. Gallo dama bëgg waxal benn affaire Gallo. Gallo parole maa ko joxaat noppi. man da nga ma joxoñ baaraam nga ne ma yaa ngi lekk suppu kanja Marème Faye Sall. yaa ngi émargé. loolu nga ma wax yaa ngi émargé. man Assane mosuma sax joxante loxo ak Marème Faye Sall muy benn débat muy benn. far Farba Senghor bi nga xam Farba Senghor la man Assane Ba Assane Ba laa. Mhm. Farba Senghor nga APR jàppale Macky Sall man je suis avec le président Abdoulaye Wade avec le président Karim Meïssa Wade. kon man sam jëm bopp sama ngor ak sama jon mayuma man may dem ci kenn bay émerger fenn. merci beaucoup un jugement de extrêmement grave. Mhm. te bu ma la porté plainte tu seras incapable de d' apporter la moindre preuve. Mhm. mais léegi su xam nga ça c' est extrêmement dangereux. n' est pas pas simplement da nga ne da nga ne ci perte te permet de dire n'importe quoi ça du sérieux. non non c' est du sérieux c'est quand même grave. c'est petit écoutez, même comme Assane, merci. comme toi. Assane, merci. c'est dommage. Non, non, je suis C'est dommage. bu dee c'est assez c'est parce que Sénégal xam na ma Sénégal xam nañ ma réew mi xam nañ ma sama xam na ma mais c'est extrêmement grave mais ça ça me ça me ça me ça c'est mes propos ça c'est mes propos j'ai pas dit j'ai pas dit une seule fois j'ai pas dit une seule fois que lekk na xaalisu Marème Faye Sall ah, defal na rek non écoute-moi bien on on est dans un débat. et après tu accuses les gens. ouvertement accusé wu ma la. yaa ma joxoñ baaram ngeen ci émarge dans les dans dans le <laughs> marché de de de diw. mais ça c'est grave quand même. c'est indécent. ok c'est du débat. parlons du dialogue. oui nest pas loolu moo gën a bu am argument tu te tais. Assane merci s'il vous plaît. yooyu noonu ngay def. nga d'accord mais mais nga man bañ naa ko ba non non il ne pas d'ironiser. C'est sérieux en du sérieux c'est extrêmement d'ironiser. C'est sérieux. De, mais avec ces c'est sérieux. C'est C'est sérieux. il faut pas ah. je joue pas ça tu sur ma personne. baaxul loolu tu jettes une discrédit sur ma personne. allez-y même c'est pas bien ces propos là. très tendancieux. Mm. ce que je dis. ce que je dis. Euh, euh, oui oui. Assane il est très respectueux. te vraiment ñu bëri PLS dañ ko xamee. xamuñu ko leneen donc faut arrêter quoi. en tout cas personne ne peut ici. Mhm. macha allah ma main. d'accord allez-y je peux lever ma personne ne peut me ce que j'ai dit je l'assume c'est la première des choses. ce que je dis doyen je l'assume. si tu l'assumes moi je prendrai mes responsabilités. Ah, a aucun problème nous sommes dans un débat politique je prendrai le débat. nous sommes dans un ah, débat politique Gallo yow tamit. voilà bu yàq dans un débat politique ne te donne pas le droit d'accuser les gens. être dans un débat politique ne te donne pas le droit d'accuser les gens. de façon de débat quand on est yaa ngi dégg quand je dis lekk suppu kànja loolu cela veut dire quoi donc ironiser la yaa ngi de kii la le respecte beaucoup il le sait pour la première xam nga nag xam nga nag xam nga dafa am xam nga nag benn affaire dafa am sàcc nga nga mer wala reykatu nit nga ma mer wala dëpp dama nga nga mer bul xuus foofu dafa non xuusuma fen c'est-à-dire que qu'on se kii dama ko respect dama ko jox cër su ma ni comme respecte doole wax mais wante dëgg est-ce que accusé naa la maa ngi jégalu léegi léegi léegi continuer sa sa léegi maa ngi jégalu voilà alors moi je le dis je le répète xam nga lépp lu ma fi wax peut-être épisode bu la concerné mais amul lu ma ci inventé amul lu ma ci sos dama ne nañu liste les responsables di PDS yu nga xamante ne nii en 2012 et en 2019 ils étaient dans l'opposition ils combattaient le régime du président Macky Sall ba tey ñu nekk ay ministre nekk ay DG nekk ay PCA. Assane bokku ci d'accord nga ak non non il n'y il n'y a pas de responsable PDS encore une fois yu nekk foofu ñi fa nekk ils ne sont plus. PDS ils ont quitté le parti ouais. ils ont encore une fois. un Farba Sambar a quitté le parti. Gallo un un le parti.

c'est très clair ah, non non parce que là c'est voilà quoi arrêtez demal ci question bi nga bàyyi say kii ndaw yi ngay def. <laughs> allez-y <laughs> de toute façon man dama ne encore une fois li ñu bàyyi ci structure du pouvoir et d'ailleurs tout récemment rek dafa am lu ñu xam nga wax naa leen ko dama leen koy wax dinañ créer biir Benno Bokk Yaakaar benn coalition bu ñuy woowee ñoo bañ ñoo lànk tout sauf le PDS. yéen ngi ciy bëgg a ñu ngi ci ñëw parce que on sent l'odeur d'un complot on sent l'odeur d'un